dafay xëy si woon tey indi ab euh, jàppam ci liggéey bi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji Serigne Cheikh Awa la moom Serigne Moussa Bassirou boole woon ak moom bi waxoon ne bu ñëwee ñu dalal ko mu jébbal yi muy indi ñu ànd ak moom ñëw ci sëñ bi ànd ak moom ñëw ba ci sa kanam ñëw na nag ñëwin woo am solo bu mel ne moom ñëwoon Masalik ñëwee ko Poroxaan barki dem indi na fi lu toll ci junniy tappi yoo xam ne tappi jëlikaay la indi na fi lu toll ci fukki junniy masque ci andi na fi itam juróom benn téeméeri butéel yi alkosel ak ay thermoflash ak ay ndox ak yu bari daal andi na ko eh, joxe itam addi ba ñu barkeeloo ko ci liggéey bi. ñu eh, ngi nii nag li mu andi wax si ñaafe wax na ko léegi ne ko teg ko ci suñu loxo ñu jël ko lañ ci am ak seere jëf yi waaye nag Sëñ Tuubaa nga ko liggéeyal te Sëñ Tuubaa mooy fay Sëñ Tuubaa mi ngi ko liggéeyal nag yéen ñi yéen ko fi nekkal muy sëriñ bi ak yow mi nga xam ne yaay ay loxoom di léppam kon nag liggéey bi ak mi ngi noonu ñu tegaat ko ci ñu ngi nii toog. lu muy wax na ko waxal boppam la ci def nga ko tontu ci sëñ ba leen jóge nii moom itam moo wax ne nit ñëw ba ci yow ñu jébbal la. asalaamaaleykum wa rahmatulah Mbacke Ball ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay eh, di la gërëm ci sa taxawaay. di la gërëm ci sa taxawaay Mbacke Ball ci Sénégal ci àdduna yàlla may na ma ma ma tukkee ndox yow ci avion xam ne li nga liggéeyal Sénégal. Euh, defe na Sénégal xamuñu ko yàlla na yàlla oyofal yan bi ñun nag dañ fay ñëwoon rek ci ndigalu sëñ Cheikh Awa Balla Mbacké euh, ci taw màggal gi euh, doxale taalibe bi ñu doon surtout que jamono jii ki fi toogal sëñ Bamba sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla may wér ànd gudd fan dafa am ay ndigal yu mu joxe te ñu dimbali ko ba taalibe yi ñuy soxey soxe te ku ci mën a jàpp ba mas bi euh, mu dellu ginnaaw nga def ko moom lu mu diggalee digale yooyu nag Mbàkke moo tax biñ ci taxawee ba léegi euh, li ñu defoon Porokhane def ko Masalikul ci ndigal nag nag nag ak ci ndimbalu sëñ Cheikh Awa Balla ak ak kër sëñ Tuubaa pat ni ñu ko yaakaare woon rek mais bu ñu ko fi defee ci taalibe euh, ci dimbali sama mbokk taalibe liggéeyal sëñ Touba euh, moo tax ñu ñëw ak indi euh, li nga xam ne yaakaar nañ ne euh, dina àdloog li kër docteur wax ndax ñoom ñu loolu ñu liggéey ci kër docteur lañ nekk di di njàngal université moo tax ñu indi fii xeeb nañ ko lool nag Mbacké ñu indi fi fukki junniy masque yoo xam ne yaakaar nañ ne ku ko takk moom dinga nga bu masque bu baax ci ci bi indi nañ fi tamit sijaada ñu jullee junni sijaada yoo xam ne yaakaar nañu it euh, dina dimbali jaam yi nga xam ne euh, bëgg nañu am sijaada wala ñu respecté distance yi ñu ko tuddee te defuñu ko. li ñuy raxase loxo yi si muy gel indi nañ ci juróom benn téeméer indi nañ également thermoflash yi nga xam ne ci bunt boo gis euh, fa lañ ko war a teg pour xool ñen ñoo amee tempé fièvre yaram bu tàng bu baax indi nañ ko. indi nañ aussi sunu sunu ziar sunu sunu sunu ziar ci ci ci ci ñi fa toogal taalibe yi ji. Euh, ndax ñoom li ñu fiy liggéey ñun lañ koy liggéeyal moo tax ñu jox leen sunu siyaar ci ci liñ ci man ci ab koppar ku tuuti euh, joxe ko nag ci ab taalibe rek di wax ne ñu leen di sant bu baax sëñ Tuubaa moo ñu mayoon ñu yóbbu ko Masalikul moo ñu mayoon ñu yóbbu ko Poroxaan moo ñu mayoon ñu yóbbu ko feneen te moo ñu dimbali ci kàttanam ba ñëw fii indi ko fi te xam ne moom loo ko lebal loo ko defal rek mu fulal la ko te sant nañ ci wér. te di leen joxaat suñu bopp wax ne la daal lépp lu ngeen yaakaar ne Mbàkke yoon bi noonu la jàppale ne ñun sëñ Tuubaa la ñu liggéeyal yéen la ñuy liggéeyal yéen ñi la fi toogal daal ñi ngi fii dénk nañ leen suñu leen ne ngi fi fu ngeen ñu wax bunt bi fu ngeen ñu wax yoon foofu la ñuy topp Mbàkke Bàlla waaw jéggalu trop nag ci kàddu ñu jël parce que di woon cër sax ñu jël kàddu wala ñu toog ñuy ànd ak yow Mbàkke ñu ngi koy jéggalu bu wér dafa nekk na protocole la rek mais ñu ngi koy jéggalu bu wér ci toog bi jërëjëf Mbàkke yi nga àndal lépp rawatina suñu ñaari mbokk yi nga àndal di sëriñ Abdul Ahad Bousso moom Baye Sëriñ ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Maxtaar ak mboolem ñi nga àndal lépp bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha di fii sëriñ Touba waaye bàyyi ko ci sëriñ bopp sëriñ Cheikh bu Balla di suñ lépp nga xam ne suñu diggante moom ñëpp xam ne cofeel bi dox ci sama digg moom ak kóllëre bu yàgg mu yàgg ma laa tudd lool nag di wax sa taxawaay ci réew mi wax sa xam-xam li nga xam ne tawfeex la ju la suñu borom defal di ndimbalu muy loo xam ne itam ndamul Sénégal la waaye ndamul yoon kon lu yàlla defee nga ñëw fi tey dañ koy rafetlu bu baax rawatina fee nga jaar ci jumaa ji nga xam ne mooy fii ñi ñuy gën a daje ci gën a ñor Serigne Touba ci dëkk te jëf ko koy jëf ngir jëm si loolu moom li la suñu àgg wax rek dañ koy jëfal teg ci boppam te ci loxoom rek kon yàlla a ñëw taw si ak ngërëm kon ngi rafetlu tànk yi di rafetlu jiw bi bu baax ñu yëg itam liggéey bu rafet nga xam ne yaa ngi koy def ci biir Sénégal gépp ngir ci wàllu wér gu yaram rawatina ak xam-xam bi nga xam ne suñu doon defal la di ñaan xam-xam bi yàlla gën ko. yokk mu gën a leer ba mu gën a jëriñ Sénégal bu baax ñu ngi sant bu baax di gërëm di rafetlu taxawaay bi jëf ci ak lii nga jëfante ngir eh, def sant bu baax di gërëm di gërëmaat waa nga ànd ak liggéey ci bi nga xam ne guddi bëccëg ñu ngi koy wax duñ ci yokkat duñ ci tàyyi di ko jëf ngir jënd Sëriñ Tuubaa waaye ki ñu liggéey moom am na ak pàccal yàlla na leen gën taxaw indi na sàmm ba di ngeen koy liggéey lépp rek day ci toog day ci ngërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah